Eh, ma dàll yow jaay ma dàll waaw dàll yi gën a nice foo jëlee dàll yi yow chez Modou Isbu Modou Isbu mu ngi foofee ca centenaire nekk en face caserne Samba Diéry Diallo képp ku bëgg ay xeetu dàll yu baax yi taloo ñambi am na vert am na jaune am na rose et bleu bi nag foo ko fàttee eh yemul foofu de couleur yëpp la nag yow mi di marie yow mi di xew yow mi di ngénte kenn demul nga des waaye xale yu jigéen yu bëgg sañse yu baax rawatina ci tabaski bi ñu dëgmal eh demal wari Mody Isbu am na ay dàll yu tendance talon ñambi yu fashion ku bëgg lu rafet daal fii ngay daw wut si ndax Mody Isbu moo ñu fi nekkal. ñun jigéen ñi numéro téléphone am di 78 582 23 22 78 582 23 22 eh ku ci bëgg lu tendance seetul Modou Isbu waay fa fa toj ak Modou Isbu rek ku fa dugg ba génn soppi xaru kanam xanaa du sañse ndax dangay sañse